wala ngeen woote ci seen succursale ci lu 3B Scat Urbam Grand Yoff téléphone 33 867 09 mu ubbil sëriñ bi ci alxuraanul karim bismillah sëriñ Ahmadu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله نستعين اهدنا الصراط المستقيم jëfati Serigne Saliou. bi nee na jërëjëfati Serigne Saliou. jërëjëfati Serigne Saliou. jërëjëfati Serigne Saliou. Serigne bi nee na jërëjëfati Serigne Saliou. jërëjëfati Serigne Saliou. jërëjëfati Serigne Saliou. Serigne bi nee na jërëjëfati Serigne Saliou. jërëjëfati Serigne Saliou. Mm-hmm. nit bu duggee bàmmeel. Serigne bi nee nit bu duggee bàmmeel. ñetti laaj. ñetti laaj. mooy njëkk a tàbbi ci boppam. mooy njëkk tàbbi ci boppam. laaj bu jóge ci suuf. laaj bu jóge ci suuf. mu di ko dégg. mu di ko dégg. te xamul kan moo koy laaj. te xamul kan moo koy laaj. laaj bu jóge ci kaw. laaj bu jóge ci kaw. di ko mu di ko dégg. xamul kan moo koy laaj. xamul kan moo koy laaj. laaj bu ci biiram. laaj bu nekk ci biiram. ko laaj. di ko laaj. du xam. te du xam. koy laaj. kan moo koy laaj. loolu la ñuy tuddee. loolu la ñuy tuddee. ñetti fani bàmmeel. ñetti fani bàmmeel. saafara ba. saafara ba. mooy. ñetti. ñetti. jërëjëfati. jërëjëfati sëriñ. Serigne Saliou ku sant ku yàlla gërëm ne ku sant ku yàlla gërëm bégloo nga yàlla lool bégloo nga yàlla lool moo waral lépp lu ñuy def moo waral sëriñ bi ne lépp lu muy tàmbali dama ciy jiital jërëjëfati sëriñ Saliou da ciy jiital jërëjëfati sëriñ Saliou dama dem ci am tudd ne daa dem ci am tudd sama mbokki taalibe cheikh nee na ay mbokki taalibe cheikh tuddum ku ñuy wax El Hadj Mbaye. ku ñuy wax El Hadj Mbaye. mi ngi ci baas bi toog sax. nee mi ci baas bi toog sax. ma nga nee toog. nee ma nga nee sunu ginnaaw toog. ñuy taalibe yi sëriñ Babacar si. ñuy taalibe yi sëriñ Babacar si. di samay soppe. di ay soppeem. comme man baatum jërëjëfati sëriñ Saliou. comme nee na moom baatum jërëjëfe seen Saliou. mooy sama dorog. mooy dorogam moom. mooy sama muslaay. di muslaayam. moom lay ubbee lépp lu may tàmbali. nee na moom lay ubbee lépp lu muy tàmbali. mooy sama bismillahi rahmaani rahim. nee na moom mooy bismillahi rahmaani rahimam. xam naa ni ñuy toog. nee xam na ni ñuy toog. ay taalibe cheikh lañu. ay taalibe cheikh lañu. su ma nee jërëjëfati Serigne Saliou. bu nee jërëjëfati Serigne Saliou rek. dina jafe. dina jafe lool. ñu ànd kook man ñu ànd kook moom ndax am na ñoo xam ni ndax am na ñoo xam ni mën nañoo bañ a comprendre baat boobu mën nañoo bañ a comprendre baat boobu ma ni leen mu ñu leen baat bii ma wax baat bi mu wax dey boo delloo ci alquran boo delloo ci alquranul karim fekk ko fa da nga ko fay fekk yàlla moo ma ko digal nee na yàlla moo ko digal fu mu ma ko digalee. fu mu ko ko digalee. faskuru nii. faskuru nii. ci bi ngay man. ci bi ngay man. askurukum. askurukum. ci bi ngay man. ci bi ngay man. faskuru nii. faskuru nii. ci bi ngay tal ci bi ngay tal askurukum askurukum ma fàttaliku la mu fàttaliku la waskuru lii lii waaye nag waaye nag nga delloo ma njukkal nga delloo ko njukkal wala takfuru ni ni te bañ ma xalab te bañ ko xalab moo tax moo tax la in shakartum la la in shakartum la azidannakum la azidannakum ku sant rek ne ku sant rek ñu dolli la ñu dolli la te nag ne te nag man lam yaskuri naasa man lam yaskuri naasa laa yaskuru laaha laa yaskuru laaha ku dul delloo nit njukkal ku dul delloo nit njukkal boo ko delloo yàlla. boo ko delloo yàlla. du ko saf du ko saf. yàlla yàlla. teraangaam teraangaam. mi ngi safe ci mi ngi safe ci. mu jaar ci nit mu jaar ci doomu aadama. ndax ba mu la koy jox. nee ba mu la koy jox. ci doomu aadama la jaar. ci doomu la jaar. boo koy delloo teraanga ji boo koy delloo teraanga ji. jaarale ko da koy jaarale. fi mu ko jaarale fi mu ko jaarale wér na lool. loolu moo tax. sëriñ bi nee looloo tax. teraanga ju ëpp. teraanga ju ëpp. defar ruu nit. defar ruuhu nit. def ci lumière. def ci lumière buy tax. buy tax. muy leeral ñeneen. muy leeral ñeneen. teraanga ëppul loolu. nee teraanga ëppul loolu wér na lool. te nga jooju. sëriñ bi nee teraanga jooju. Salihu nu ko defal nee na sëriñ Salihu mbakke rek ñu ko defal wér na. ku la jox saakub ceeb nee na ku la jox saakub ceeb nga ne ko jaajëf nga ne ko jaajëf ku la may 1000 francs ku may 1000 francs ne ko jaajëf nga ne ko jaajëf ku la bàyyi këram nga fanaan ku la bàyyi këram nga fanaan nga ne ko jaajëf nga ne ko jaajëf naka mook naka mook ki la jox ki la jox nga judul dog teraanga judul dog mooy marale la ak sa borom muy marale la ak sa borom te mooy Serigne Saliou te mooy Serigne Saliou Mbacké moo tax Mbacké jaajëf nee na Serigne bi ne moo tax mu ne ko Mbacké jaajëf nañ ni Mbacké jaajëf Mbacké jaajëf ko waay sëriñ bi nee ñu wax di Mbàkke jaajëf. Mbàkke jaajëf. dégguma leen de. sëriñ bi nee dégguñu de Mbàkke jaajëf. Mbàkke jaajëf. dégguma leen de. sëriñ bi nee dégguñu de Mbàkke jaajëf. Mbàkke jaajëf. jërëjëfa Sëriñ Saliou. jërëjëfati Sëriñ Saliou. jërëjëfati Sëriñ Saliou. jërëjëfati Sëriñ Saliou. jërëjëfati Sëriñ Saliou. jërëjëfati Sëriñ Saliou. jërëjëfati Sëriñ Saliou. jërëjëfati Sëriñ Saliou. Ah, waaw sëriñ bi nee ñu gore rek. bi ngeen di tànt fii. nee bi ñuy tànt fii di def yoor yoor bi. di def yoor yoor bi. yàggul de. nee sëriñ bi ne yàggul de. 2012. 2012. astafurlah 2000 2009. bi nee 2009. lañ ñëw fii. lañ ñëw fii. ma ànd ak Gorsa. mu ànd ak Gorsa. Njaak Sàmm. Njaak Sàmm ndeysaan. fekk bâtiment bi. fekk bâtiment bi. xaddaguñ ko sax. xaddaguñ ko sax. biri gi ne ci biir. biri gi nekk ci biir. mu ne ko Njaak. mu ne ko Njaak. ku baax ki bi mu may jox téere bi ku baax ki bi mu koy jox téere bi. Serigne Saliou Serigne Saliou. daf ma jox benn mouchoir. da koo jox benn mouchoir. mouchoir ba. mouchoir ba. mi ngi ci fondement kër gi. mi ngi ci fondement wu kër gi. mu ne ma tàmbalil may yeggale. mu ne ko tàmbalil may yeggale. yor na lool. comme gëm naa ni day yegg. comme gëm na ni day yegg. mel ni mu war a mel. mu mel ni mu war a mel. nañ dal rek màggal. nañ dal rek màggal. ñu dandale biir gi. ñu daal dandale biir gi. def yoor-yoor bi. def yoor-yoor bi. ci première case bi ci biir. ci première case bi ci biir. suñu matee vingt personnes. nee na bu ñu matee vingt personnes. wala trente. wala trente. ci la ñuy ci la ñuy yem. ku baax kii niit rek. sëriñ bi di niit rek. te taxawu gudde. te taxawu gudde. ci kanam tuuti. nee ci kanam tuuti. ku yéex a màggal si. ku yéex a màggal si. doo dugg mu waay doo dugg mu waay bu wér na. loolu ci sunu kanam la ne. nee ci sunu kanam la ne loolu. Hmm? loolu mooy ak yokkute. sëriñ bi nee na loolu mooy ak yokkute. ngeen di defaat yoor-yoor. ñuy defaat yoor-yoor. dem ci kaw terrasse bi. dem ci kaw terrasse bi. dem ci saal bu mag bi. dem ci saal bu mag bi. dem ci buntu kër bi. dem ci buntu kër bi. kon bu demee bay demee nii. nee na kon bu demee bay demee nii. ngeen toxal ko ginnaaw gee. ñu toxal ko ginnaaw gee. ngir bëgg muy gën a yaatu. ngir bëgg muy gën a yaatu. da ngeen a war a sant Serigne Saliou. sëriñ bi nee danoo war a sant Serigne Saliou. te xam ne dimbali na leen. te xam ne dimbali na leen lool. loolu moo tax ma di ko delloo njukkal. sëriñ bi nee loolu tax mu koy delloo njukkal moom Saaliw. te sant gi ñu koy sant. nee sant gi koy sant nag. ñun suñu njëriñ la. nee na loolu suñu njëriñ képp la. saa yoo ku yàlla sant. nee na saa santee bu yàlla sant. am na lu yokk ci yow. am na lu yokk ci yow. boo ko yëgee. boo ko yëgee. ak boo ko ak boo ko daa mat a bàyyi xel. sëriñ bi nee loolu daa mat a bàyyi xel. kon nag. sëriñ bi nee kon nag. maa ngi koy sant bu baax. mi ngi koy sant bu baax. cant goo xam ne am na fu mu tàmbalee. sëriñ bi nee di sant sëriñ Saliou cant goo xam ne am na fu mu tàmbalee. waaye amul fu mu waaye amul fu mu yem. sànq ci démb démb. bi nee démb. dama génn. dama génn. di ziyaare ji ku baax ki. di ziyaare ji ku baax ki. muy sëriñ Cheikh Saliou. muy sëriñ Cheikh Saliou. xam ngeen dama daan def. ne xam ngeen nam daan def rek moom. su desee. une semaine. bu desee une semaine rek. ma dem ni ko jàkk rek. mu dem ne ko jàkk rek. doo ko ñëw màggal ba noppi koy ñëw màggal ba noppi. ca ëllëg sa ca ëllëg sa. mu doog faa delluwaat mu fay delluwaat. bi yoon nag ma yéex faa dem lool. bi yoon nag mu yéex faa dellu lool. suba la màggal suba la màggal. fekk ñuy wàccee kaamil ci biir. fekk ñuy wàccee kaamil ci biir. te ma ja lool. te mu tab ja lool. mu may woo téléphone rek. mu koy woo téléphone rek. ñu may woo téléphone ñu koy woo téléphone rek. fii ci kër gi fii ci kër gi. ma bay dem. mu jóg bay dem. kii dab ma sëñ aboo dab ma sëñ aboo dab ko ak ñi mu àndal ak ñi mu àndal ñu doo patiente tuuti ne ko doo ko doo patiente tuuti ak sëriñ bi yeggale kaamil bi yeggale kaamil bi sëñ bi sëñ bi bu téyee kaamil bi bu téyee kaamil bi kenn du ko wax ni ko kenn du ko wax ni ko am nañu fi fi nekk wér na dimbali ñu rek dimbali ñu rek nga dugg ci biir nga dugg ci biir nga toog xaar tuuti man leen mu ni ko bàyyi leen ma toog fii rek bàyyi leen ma toog fii rek man kër sëñ bi moom kër sëriñ ay taalibe lañ fi ay ñu forcé ma rek. ñu forcé ko rek. ne ma dugal ci kaasam bi rek. ne ko dugal ci kaasam bi rek. nga toog dallu foofu nga toog dallu foofu. ma dugg. mu dugg. fekk fa soxna su baax si. fekk fa soxna su baax si. mu toog mu toog. ndeke yàlla dogal na. ndeke yàlla dogal na. moom it mu ëmbal cofeel. moom mi ngi ko ëmbal cofeel moom soxna Xadi. moom soxna Xadi Mbacke mi. moom soxna Xadi Mbacke mi. honorable ma toog mu toog. ñu nuyoo. ñu nuyoo. mu wax ma cofeelam ci man. mu wax ko cofeelam ci yow. xamal ma ni ma yàgg naa laa bëgg a gis. mu xamal ko ni sëriñ bi yow yàgg naa laa bëgg a gis. ma ne ko fii la ko sëriñ Saliou dogale. mu ne ko fii la ko sëriñ Saliou dogale. ñu fasante kóllëre. ñu fasante kóllëre. mënoon naa ñibbi rek. nee na mënoon naa ñibbi rek. ak activités yi jamono yi ak activités yi jamono waaye déedéet. waaye déedéet. mu jóge ba Mbàkke. mu jóge ba Mbàkke. ak circulation bi. ak circulation bi. ni faw mu yegsi ci daara ji man boo ma bëggee jam rek nee na boo sëriñ bi nee na boo ko bëggee jam rek ku ma bëgg jam rek ku ko bëgg a jam rek wan ma gore wan ko gore ak yitte ak yitte ku ma wan gore ak yitte nee na ku ko wan gore ak yitte daaneel nga ma daaneel nga ko ak pànk du ma yëngal nee na pànk du ko yëngal wér na alal du ma yëngal alal du ko yëngal wér na judd du ma yëngal judd du ko yëngal wér na taar du ma yëngal nee na taar du ko yëngal wér na oyof oyof baax baax moom ma yëngal nee na loolu rekk ko yëngal ndax ku ko def rek nee na ndax ku ko def rek dama lay ragale xel da lay ragale xel ndax yooyu secret yàlla la nee na ndax yooyu ay secret suñu borom la oyof nee na oyof oyof yàlla nee na secret suñu borom yitte yitte secret bi yàlla nee na loolu secret bi suñu boroma ay secret lañ. nee na ay secret lañ yoo xam ni. yàlla ko moom yàlla képp ko moom. ku ko imposé rek. nee na ku ko imposé rek. bàyyi ko xel nee na da ngay bàyyi xel. loolu la ñuy jàppee nit. nee na sëriñ bi nee na loolu rek nañuy jàppee nit. kon maa ngi koy sant bu baax. nee na kon mi ngi lay sant soxna si. ci sa teewaay ci jotaay bi ci sa teewaay ci jotaay bi. ak sa kilifa yi nga fi teewal ak sa kilifa yi nga fi teewal. sëriñ ñoxor Diouf mi. nee na sëriñ ñoxor Diouf mi. adjudant Diouf. adjudant Diouf. tey moom baas bi daa riis. nee na tey moom baas bi daa riis. waa cyber criminalité. waa cyber. cyber criminalité jërëjëf waaw ñoom kay bàyyi leen rek. man jànguma sax te mën naa ko wax. nee na moom jàngu sax mën na ko wax. cybercriminalité. nan noonu. ñii topp gaa yi mel ni ma di. ñii topp gaa yi mel ni man. ñu ngi ci baas bi. ñu ngi ci baas bi. maa ngi leen di sant bu baax nee na mi ngi leen di sant bu baax a baax. mboolem fu délégation bàyyeekoo. mboolem fu délégation bàyyeekoo rek. sant naa ñëpp. sëñ bi nee na sant na ñëpp. su ma taxawee di lim nag. nee na bu dee lim nag. temps bi dana gudd lool temps bi dana gudd lool. kon nag kon nag. mboolem délégation yi fi teew rek. mboolem yi fi teew rek. ñi nga xam ne dañoo ànd ak soxna Fatou. ñi nga xam ne dañoo ànd soxna Fatou Pouy. muy ñoom soxna Kuna. muy ñoom soxna Kuna. ak ñoom soxna Teneng. ak ñoom soxna Teneng. jël seen jël seen oto oto. jël seen oto bopp. ndeysaan ñëw ci bis bi. nee na ndeysaan daal di ñëw ci bis bi. maa ngi leen ci sant bu sëriñ bi nee na sant na leen ci bu wér a wér. ci mbégte lool nee na am na ci mbégte lool. ak mboolem taalibe yëpp. képp ku fi ñëw ci bëccëg rek képp ku fi ñëw ci bëccëg rek. ziar na ñëpp nee na ziar na ñëpp. fàttewu ma kenn nee na fàttewul kenn nit. yéen caméraman yi. nee na yéen caméraman yi. na ngeen déglu bu baax li may wax. nee na ngeen déglu bu baax li muy wax. bu leen ca yokk nag. bu leen ca yokk. bu leen ca wàññi. bu leen ca wàññi. bu leen dagg. bu leen dagg. leen taf. bu leen taf. bu leen kole. bu leen kole. bàyyi leen ko noonu rek bàyyi leen ko noonu rek. maa ngi leen di xamal ni. nee mi ngi leen di xamal ni. Serigne Touba amul morom. sëriñ tuubaa amul moroom wér na lool. Serigne Touba. Serigne Touba. amul morom. bi nee na amul moroom baat boobu nag nee na baat boobu rek la bëgg a firi. su ma ko nee na bu ko firee daal du ñuy ñaanal. Serigne Touba. Serigne amul morom. amul morom. ku am moroom ku am morom. du sa morom. du sa moroom oh. yàlla dogal. nee yàlla dogal. amul morom amul morom. tey loolu. ku gëm. nee ku gëm. xam xam. ni amul morom ni amul morom. ñu tàmbali laa ràññee. ñu tàmbali laa ràññee. ci say morom ci say morom. <laughs> loolu gis na ku gëm. nee ku gëm. ni Serigne Touba. ni Serigne Touba. amul morom. amul morom. ñu tàmbali laa ràññee. ñu tàmbali laa ràññee. ci say morom ci say morom boo ca saxee boo ca saxee raw say morom raw say xaw tuuti xaw tuuti doo am morom doo am morom mu yow asiiru nee asiiru maal abraari maal abraari xiina xiina xiina xiina ñeenti yoon la ñëw ci alxuraan xiina nee baatub xiina mooy foofee asiiru asiiru maal maal abraari abraari asiiru asiiru wa zanna wa zanna alxida alxida hunaaka asiiru asiiru fekk asiiru maal abraari maal abraari ñoom nag ñoom nag zanna alxida zanna alxida hunaaka hunaaka asiiru asiiru kon ndekete ñaari jëmmay dox ak jëmm jindul gis. ak jëmm jindul gis. neena man maa ngi ànd ak ñoom. nee na moom nee mi ngi ànd ak ñoom. moom Serigne Touba moom Serigne Touba Xaadimu Rasuul. maa ngi ànd ak samay noon. nee mi ngi ànd ak i noonam. noon yi jàpp ni ñoom laa àndal. noon yi jàpp ni ñoom laa àndal. yow lay wax ni. yow lay wax ni. maa ngi ànd ak ñoom. maa ngi ànd ak ñoom. ba noppi ba noppi. nga ni nga ni ñu jàpp ni. ñu jàpp ni ñoom laa àndal ñoom laa àndal. fekk na maa ngi ànd ak ñu baax ñi. fekk moom mi ngi ànd ak ñu baax ñi. waaye ndok. waaye ndok. asiiru la wax. asiiru la wax. maa ngi dox. moo ngi dox. xam nga baatu maa boobu. nee xam nga baatu maa boobu. asiiru am na. asiiru am na. asiiru am na. asiiru am na. waaye moom. waaye moom. asiiru la bind. asiiru la bind. bindaat ko. bindaat ko. asiiru asiiru. Serigne tubaa Serigne bi nee kenn du Serigne Touba. baat boobu. nee na baat boobu. moom la ñuy dégg fii moom la ñuy dégg fii. moom la ñuy dégg ëllëg la ñuy dégg ëllëg. kenn du Serigne Touba. kenn du Serigne Touba. ku tey. ku ko xamul tey. bis dana ñëw bis dana ñëw. nga bëgg koo xam nga bëgg koo xam te doo ko a xam te doo ko mën a xamati. kenn du Serigne Touba loolu daa mat a bàyyi xel. waaw nee loolu daa mat a bàyyi xel. kon nag kon nag. bisam bu tedd bii. bisam bu tedd bii. nga xam ne daanaka ci la ñu gorale. nga xam ne daanaka ci la ñu gorale ñun. lim ci am mooy sunu tawféex ñun ñëpp. lim ci am mooy sunu tawféex ñun ñëpp. la ñu war rek mooy sant. la ñu war rek mooy di ko sant. delloo sunu lépp ci moom. delloo sunu lépp ci moom. doon ay taalibe. doon ay taalibe. te ngeen di fexe ba. te ñuy fexe ba. ku leen gis. ku nu gis. du xeebee sëriñ bi ci yéen. du xeebee sëriñ bi ci ñun. ci seeni melokaan. ci sunuy melokaan. ak seenu defin. ak sunuy defin. jamono nag lëndëm na. nee na jamono nag lëndëm na. Sëriñ Tuubaa waxoon na ko. Sëriñ Tuubaa waxoon na ko. haada zamaanu. haada zamaanu. aqbaxu zamaani. aqbaxu zamaani. lu tax lu tax. li kasratil asiyaani. li kasratil asiyaani. fil buldaani. fil buldaani. fil buldaani. fil buldaani. kenn amatul kersa. kenn amatul kersa. ci def lu ñaaw ci def lu ñaaw. moo tax jamono xat na. moo tax jamono xat na. waaye lu jamono xat xat. waaye lu mu xat baax a ngi baax ba léegi. baax mi ngi baaxam ba léegi. kon nag. kon nag. maa ngi leen di dénk. sëriñ bi nee mi ngi nuy dénk. nañ gën a bëgg sëriñ tubaa nañu gën a bëgg sëriñ tubaa te bañ koo yemale ak dara te bañ koo yemale ak ne mi ngi sant sunu xalifa bi sëriñ cheikh sëriñ cheikh yàlla na dund fanu yonent yàlla noo nee na yàlla na dund fanu yonent yàlla noo képp ku jàpp ci màggal gi nee na képp ku jàpp ci màggal gi rek maa ngi lay sant bu baax sëriñ bi nee mu ngi lay sant bu baax maa ngi sant waa waa Kirène nee mi ngi sant waa Kirène bu baax ci taxawaay bi bu baax ci taxawaay bu solo bi taxaw nañ ko ci bis bi taxaw nañ ko ci bis maa ngi sant waa waa waa bi. nee mi ngi sant presse bi seen taxawaay seen taxawaay ci bis bi. waa DTV. waa DTV. waa TFM. waa TFM. waa Dakar Actu. waa Dakar Actu. waa Leral point net. waa Leral point net. waa Tawfekh production. waa Tawfekh production. waa Touba TV. waa Touba TV. ñoom ñëpp ñoom ñëpp rek. 15 jours avant màggal 15 jours avant màggal. yëngu-yëngu bu ngeen def rek. yëngu-yëngu bu ngeen def rek. yaatal nañ ko yaatal ko. sans condition sans ku dul sant nit nag ku dul sant nit nag. gorewoo gorewoo. te ku ma fàtte. nee te ku mu fàtte. na ngeen ma ko fàtte. nañ ko ko fàttali. maa ngi sant ministre Amadou Ba. mi ngi sant ministre Amadou Ba. teraanga jim ma yónnee. teraanga jim ko yónnee. fekk na ma jóge Dakar. fekk na mu jóge dakaar waaye dama woo jëwri universel waaye daa woo jëwri universel. ne ko demal ne ko demal. mu jox la teraanga ja mu jox la teraanga ja. nga dugal ko ci màggal nga dugal ko ci màggal gi. Mm, kii Pam Ndiaye Pam mu dem jëli ko mu dem jëli ko loolu it maa ngi ko ci sant loolu it ko ci sant bu wér ndax mënoon na ko ca bañ a fekk ndax mënoon na ko ca bañ a fekk kon nag kon nag bég naa lool nee na bég na lool ku ma ku ma tuddul rek sëriñ bi nee ku mu tuddul rek waa kay ak waa kër Amar Amet Amar Amar Amar Amar waa enama maa ngi daa xaw a daa riis lool nag nee na maa ngi ren daa riis lool nag waaw ah, ndax ni ci nit ñi jàppee ndax ni ci nit ñi jàppee moom daa musul am moom daa musul am waaye nag noonu rek la mën a demee waaye nag noonu rek la mën a demee day yokk rek day yokk ba faw ah, kon nag maa ngi sant bu baax kon nag nee mi ngi nuy sant bu baax waa daayira Touba Tawfekh ngeen waa daayira ngeen ñeen maa ngi leen sant bu baax mais sëriñ bi nee mi ngi leen sant bu wér wér sëriñ Cheikh Wañaan sëriñ Cheikh Wañaan ak mboolem ñi nekk seen ginnaaw ak mboolem ñi nekk seen ginnaaw maa ngi leen di ni bëgg naa sëriñ bi nee bëgg na lool alhamdulilah daaw ngeen jébbalu fii nee daaw ngeen jébbalu fii ma jox leen tur mu jox leen tur Touba Tawféex Touba Tawféex ngeeñeen ngeeñeen ngeen ñëw ren ngeen ñëw ren ci anam boo xam ne ci anam boo xam ni xaaruma ko woon nee xaaru ko woon kon loolu sant na nee kon loolu sant na ci bu wér waa daayira Riyaadu Saalihiin waa daayira Riyaadu Saalihiin jëwriñ soxna Faat Puy jëwriñ soxna Faat Puy Pape Ndiaye professeur Pape Ndiaye naa lool nee bëgg na lool bi rafet na lool taxawaay bi rafet na lool